bég dama bég tey par rapport ak final bi ma gis tey vraiment bég nañ trop parce que final bi neex na organisation baax na euh, di gërëm parrain bi aussi parce que parrain bi euh, biñ ko waxee final beeg léegi foo naa ne motul deux semaines mais lim ci def parrain bu préparé un an sax defu ko si parce que en junior senior jox na leen envolé bi 1 million euh, vainqueur bi vaincu bi mu jox ko cinq cent en cadet, nous avons de 300 000, 20 vaincu, 200 000. Nous avons de 200 000 francs pour des frais d'organisation. Nous nous développé Nous devons nous aussi, nous avons accompagné vraiment Nous le plus de Parce que nous nous limité, c'est dans l'intérêt de Kaulak, c'est pour le développement de Kaulak. nous avons fait le Kaulak. devons nous avons fait le Bilan saison, nous avons fait le Football, une saison, euh, ñun nawetaan régional duñ jouer lu on joue à partir des quarts de finale lañ jouer. mais bi joue aussi, il y avait Nioro amoon département Nioro département Nguinguinéo mais il def a ñu teel leen éliminé en demi-finale il y avait équipe département Kaolack ñoo fi nekk bi aussi ñaari équipe département Kaolack surtout ñaari équipe yi zone KA a euh, Ka bu ODK bu Kaolack ñoo finaalu kontaan nañ ci parce que dañuy joué nawetaan fii amul Ben violence organisation li ci ama tuuti li ñu ko public bi xaw na manqué léegi par rapport ak ni mu doon bu njëkk mais dinañ ci liggéey pour que vraiment public boobu del si xanaa avant tout rek may sant yàlla mi nga xam ne ne moo ñu fekkee ñu moo ñu may ñu fekkee waaye di wax ne mbégte la am fierté bu ngand laa am bu nekk parrain final régional bu mag bii nii ndax finalu particulière la parce que dañ ko greffé ak finalu zone 3B bi maanaam ñetti manifestation lañ boole tey def ko ci benn benn bés mu nekk am solo may sant nag ñi nga xam ne ne ñoo ma jël doyloo ma def ma parrain ndax tamit permettre nañu ma communion ak jeunesse Kaolack bi nga xam ne ne bokk na ci ñu tax ma engagé wu en politique di wax jeunesse boobu noonu lu métti métti métti incha allah luñ ma laaj su ma ko mën dinaa ko def bëgg leen ak gëm leen fonk leen moo tax ma nangu. bolé manifeste euh, ñaari final yi def don sen parrain won léne amna am léne fu di léne wax pour ñom inshallah je répondrai toujours présent. dañuy féliciter président ci initiative bo mu am des ko zéro déchet mais ñun daf ñu ci fekk depuis nous avons créé mouvement Kalou Nouvelle Vision.

ni ñuy def mooy dañu leen organiser benn compétition boo xam ne ne ni ñuy jongante ci terrain football bi noonu la ñuy jongante ci terrain set setal équipe bi gagné ñu jox la mise boo xam ne ne moom la ñuy équipe nawet moom la ñuy gagné ci terrain football bi incha allah lépp rek pour ñaax Kaolack waaye ñu gën a jël seen gox en charge ne set ak setal moom maa ngi leen wax ne buñ ci xaar kenn.